sopp nabi cher gentede yu enquête 221 dal leen euh, jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook la tribune yéenekaay mi deesuwaat ci woyofal gi nga xamante ni bu ñu seetlu mi ngi bëgg a rey askan bi nga xamante ne nii depuis le 17 mai bi ñu génn ku ci am seetlu xam ne li ngay rechargé ci woyofal mi ngi bëgg a ëppee loxo ndax yéenekaay bi xamal nañu ne am na ñoo xamante ne ni ñaari recharge yu 5000 francs la ñuy def par jour donte waa Senelec ñu ngi lan moo wundu nag courant bii di yokk saa su nekk loo jënd ci woyofal gii mu gaaw a jeex détail yi lépp yéenekaay bi deesuwaat na ci dañuy xamal ni client woyofal yépp fi mu toll nii laa la wax ko ci nekk bu amee seetlu tuuti xam ne nag courant bi yokk na ci sa côté l'observateur ne jafe-jafe yi kay fépp la du courant bi kase sax moo yokku ndax bu nuy xool jamono ji nga xamante ni ñu ngi waajal tabaski bi marché bi commencé naa am tension ndax moo xam soble moo xam pomme de terre jigéen ñi ay jafe-jafe dëgg lañu am pour ndugg état bu Sénégal gi jëlagu ci benn mesure te fi mu toll nii ñuy wax ak yéen pomme de terre bi moom waxuma la sax kenn mënu koo jënd waaye da dul teg bët laa la wax ci marché bi yenn zone yoo xamante ni benn kilo pomme de terre sax doo ko gis ndax ñàkk gi ma commencé ñàkk ci marché bi donte kilifa yi ñu ngi ciy indi lay waaye yéenekaay bi xamal nañu ne bu nu moytul ci tabaski bu doy waar lañ jëm fekk jamono jooju moom nguurug Sénégal gi ñoo ngi bëgg a jubbanti nag justice bi waxtaan wu yaatu lañu ñu fas yéene seq ak acteurs yi ay magistrat ay huissier société civile bi ba ci sax homme politique yi ñoom ñëpp lañu woon ak ci waxtaan wu yaatu woo xam ne dañuy xool yan réforme la ñuy def ci suñu justice bi ba Sénégal yi mën cee gën a gis seen bopp yéenekaay bi dellusiwaat ci wàllu politique ak waa parti démocratique sénégalais seen doxalin jamono ji ci langue politique gi la kenn mënul comprendre ndax yéenekaay bi xamal nañu ne weexuñu ñuul luñu ñoom waa PDS seen xamul ci yenn jeu lañ dugg fi mu toll nii ñii jàpp nañ ne ay réaliste politique lañ ñenn ñi jàpp ne ay opportuniste lañ maanaam fu tooy ñu takk seen taxawaay fi mu toll nii ci langue politique bi la kenn mënta comprendre est-ce que sax ñoom waa PDS nguur gi la ñu àndal wala boog dañoo bëgg a jël taxawaayu opposition kenn xamagul seen démarche les ko yéenekaay ne ñi ñu xam seen démarche kay mooy DG bu bu siiw bi nga xamante ne ni porté na plainte maire bu Kër Massar Nord ak benn journaliste boo xamante ni ñoom ñoo doon saboté ci réseaux sociaux yi seen produit yi ba tey yéen bi duñu xamal nii mu ngi yëngatuddee surtout ci diggante APR ak PASTEF defante gi laa la wax mu ngi mel ne tulleeg man ndax nit ki démb dong na cadre APR yii gisante nañ tey dëggal ne jug jot na def mobilisation jàkkaar la nguur gi nga xamante ne nii ñoom ñoo yi jàpp ne nag luy njig di njaag ko mooy njaag jamono ji fi mu teg tànkam baaxul ndax mi ngi mel ne moom la fal muy président de la république du Sénégal alors que moom premier ministre kase la ñoom waa APR di xam ne ci biir yéenekaay bi ne jot na nag ñu jéem a président de la république ndax mbubu miñ ko solol fi mu toll am na keneen ku koy xëccu pour sol ko di ko doxee di ko waxee te du kenn ku dul Sonko ñoom cadre APR yi tamit di sàkku ci responsable yi ñu woote a perspective yi ñu jëm xool tamit naka lañ mën a jàkkaarloo nguur gii fi nekk ca wet ga Abbas Fall moom mel ne kuy anticiper déclaration de politique générale bi nga xamante ni ñoo ngi koy xaar ci premier ministre ci biir assemblée nationale moom Abbas Fall di xamal ministre yi fay waaj a ñëw ne man de li ma concerné laa wax amul benn ministre bu fay ñëw ma koy ragal ginnaawam nay lépp di leer rek ku ñëw daal na nga assumer ses responsabilités jëmu ca de moom Abbas Fall ndaxte mu ngi xamle gis nga tas gi jot ne ko war a tas assemblée nationale ay dépendre ci député yi rek pour man waraguñ koo dissoudre mën ñu bàyyi ba xool nag doxalinu député yi ba noppi bu dee dañoo bëgg a saboté nag gouvernement bi rawatina doxalinam su boobaa mën nañ koo tas ndax man xam naa ne ca biir assemblée nationale am na député yu bokk ca majorité ba waaye pare nañ pour jàppale gouvernement bi de surtout ci question yi nga xamante ni intérêt national la ñun daal li ñuy woote moo di jàmm ca biir assemblée booloo nekk benn ñu député yépp permettre gouvernement bii mu doxal lu ko mooy nag sabotage bu fa naree am gouvernement bi am na possibilité wu tas assemblée nationale bi enquête yéeni kaay moom def taxaw seetlu ci diggante président président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak meeru ville bu Dakar bii di Barthélemy Diaz seen diggante ñoom ñaar bu doon làmb yéenekaay bi xamal nañu ne ñoo nga ca léewtoo bu xaw a yàgg sax seen relation ñoom ñaar intérêt gi ci nekk est-ce que bu Dakar mën na dem sans appui yu état bu Sénégal état bu Sénégal tam est-ce que tamit mën na dem sans mairie ville bu Dakar en tout cas yéenekaay bi xamal nañu ne derby la mës a doon depuis 2009 laa la wax mairie ville bu Dakar digganteem ak état bu Sénégal du ne ndax ka fa nekk di doxal duy bokku camp politique ak mouvance présidentielle Pathé Mbeng moom di xam la ci biir kaay bi ne yaakaarul benn yoon na jafe-jafe war na mën a am surtout lu jëm ci wàllu collaboration entre mairie ville bu Dakar ak état bu senegal ndax liggéey moom force ñu def ko ñoom ñaar projet yi nga xamante ni fi mu toll nii mairie ville bu Dakar naan la ko surtout lu jëm ci wàllu voirie yi autonomisation édifice public yi rawatina taaral gi ñu bëgg a taaral Ndakaaru yokk sécurité bi ba ci yenn sanc prioritaire yi nga xamante ni mairie ville bu Dakar am na ko ak sax nag condamnation Barthélémy Dias bi nga xam ne moom ci ndoddam ba léegi si yii yëpp nag bu ñuy seetlu dong nag ko ci a jàppale mooy président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye lan la ci président nag di décider lii moo jar a laajte moo tax tekk-tekkaaralu Barthélémy Dias bi stratégie dëgg moo ko lal le tey mooy yéenekaay moom di ñu xamal ni guerre daal moom politiquement mënul ñàkk ci diggante APR ak PASTEF rawatina nag ci assemblée nationale bee nga xam ne tôt ou tard nag premier ministre bu Sénégal bii di Ousmane Sonko dana fa dem jàkkaarloog député yi yéenekaay bi ne léewtoo bi yàgg na de diggante opposition bi pouvoir bi waaye boo moytul assemblée nationale moo koy déclenché sax nag booy seetlu xam ne Ousmane Sonko dem ga muy dem ci assemblée nationale mënul yomb benn yoon ci moom ndax déjà opposition bi ci fan yi jógee ne rek gis nañ ne ci réseaux sociaux yi may ñu dara na gouvernement bi ci plateau télévisé yi ba ci yenn arrestation yoo xam ne commencé nañ ko nemmeeku ci langue politique bi ñenn ci opposition bi ñu dugal leen ci kaso bi ci ñoo xamante ni ñamal nañ leen déjà gaz lacrymogène ci ñaari weer yi nga xam ne la fi nguur gi toogagum opposition bu bees bii nag bu fekkee lii yëpp guux na ko mbaa dina yombal mbir yi nag Ousmane Sonko ci assemblée nationale ci déclaration de politique générale xelam en tout cas waa parti socialiste moom jamono ji may wax ak yéen ñoo ngi defar seeni sàppe fas yéene nañu convoqué nag benn waxtaan woo xam ne bureau national bi ci boppam ñooy lëlu samedi bii ñu jëm def seen évaluation ci élection présidentielle yi ñu génn woote waat nag mobilisation yenn question yi soxal tam askan bi ñu wax ci seen gis-gis lii yépp fas yéene nañ koo togg nag ci samedi bii ñu jëm bés bi la journée kii togg tey jox askan bi kay ci wàllu communication weesuwul Ousseynou Ly mi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum communication gouvernement bi bi def portrait nag ci Sène mii tey xamle ne ndaw la de te ba mu duggee sax ci Pastef nag daa yàggul 2018 la fa njëkk a teg tànkam yéenekaay bi ne en tout cas même nomination amul kenn ku ko contesté ndax ñépp a xam nag fullaak fayda gi mu am ci liggéey rigueur bu kenn mënta naa table fanweeri at ak juróom kese la am moom Citizen remplacé Yoro Dia ci projet agence coopération internationale bu Corée moom Citizen tamit ñépp ngi fàttaliku jamono bi nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi ci kaso bi yéenekaay na ci taxaw seetlu Ibrahima Diallo di xamle ne lenn dong la doon wund moo di Ousseynou Ly ci Ousmane Sonko kenn mënu koo naatable fullaak faydama gis-gisam tamit kenn mënu ko koo xañ moom nag fi mu toll nii mu nga ca kanam ba ci plateforme jubbanti bi nga xam ne ñoo ngi koy lancé moom Ousseynou li am na rôle bu rëy bu ñuy xaar ci moom ngir mu joué ko ci plateforme bi ni mel l'info yéenekaay moom def taxaw seetlu ci doxalinu guvernement bu bees bi nga xam ne li ñu yaakaaroon ne romb nañu ko weesu nañu ko ndax daaneel nañu guvernement mu Macky Sall dafa mel ne ba léegi si laa la wax jugagu fi yéenekaay bi def taxaw seetlu ci arrestation Bah Diakhaté en tant que activiste ne li ni mel tamit daan na ko def tëjul ay opposant rek daan na tëj aussi ay activiste tey jii tamit li ñu gis moo di activiste yi ñoom ñoo ubbi arrestation yi booy xool ba xool nag arrestation yii moo xam ya yi daan def moo xam li gouvernement bu bees bii di def te mooy délit d'opinion ku xarab daal ñu jàpp la dugal ci biir kaso bi yéenekaay bi des di def taxaw seetlu nag ci doxalinu nguur gi di xamle ne régime bu bees bii daal xaaruñ ci moom nag muy def ay arrestation ndax lii yépp na bokk na ci ñu doon xeex ñoom jamonoy Macky Sall ku wax ñu jàpp la dugal ci kaso bi benn cadre APR nag moom di xamle ci biir yéenekaay bi ne lépp gi rek moom jàpp na dafa sedd ci ñoom ndax amul lu ñu fi yekkul nguur gu Macky Sall buñ leen tuumaan lul wàllum scandale yàq nañ seen der dem nañ sax ba leen di duppee ay dictateur surtout jamono boo xamante ni rek jàpp nañ fi ab activiste ñoom ñii nekk tey ci nguur gi ñoom ñoo ko doon ñaawlu tey nag ubbi nañu série d'arrestation yi sursu amoom dalal nag ministre du commerce mu def waxtaan wu am solo ci biir yéenekaay bi bëgg a tëj gémmiñu nag képp koo xam ne yaa ngi ci opposition bi rawate na nga doon liggéey nag ci jamonoy Macky leen ne du yéen yéenee jox leçon na gouvernement bu bees bi moom ministre bi boppam Alioune Dione di xamle ne gis nga fulla ak fayda Assane nag ndax booy xool doxalin gouvernement bi fi nekkoon politique de finance sax la wax bu jaar yoon amuñu ko woon lieu que Macky Sall ak ay ministre am doon fexe la tout ba créer emploi wala ñu def ay financement dañu doon def kay moo di pàccoo alalu askan bi moom ministre bi ndaxte mi ngi xamle ne ba ci microcrédit bii ñu jugee kase kase kase laa wax damaa def financement ba mujj gi ma daat koy arrêté moom ministre bi di xamle ci biir yéenekaay bi ne yenn financement yi gouvernement bi daan def ay financement politique la woon de di satisfaire yenn ci ay di clientèle politique yàqate goo xamante ni kenn xamul nu mu fa demee am na ñoo xamante ni ci wàllu financement moo xam engrais la ak lu mu mën ci doon ay politiciens ci boppam ñoo leen doon lijjantal li ni mel ba ca diwaanu Bambey bëri na ñoo xamante ni daan nañu recevoir ay subvention te ay politiciens ñoo ko doon lijjanti ba noppi ñoom homme politique yooyu dañu am seen part ci gâteau bi ministre bi def ay révélation yu rëy ci doxalinu gouvernement bi fi woon ne dañ doon buboon ak kilifa diine yii di def lu leen neex na ci dëgg yàlla état bu Sénégal kum ay ex ministre di défendre Bah Diakhaté moom ministre bi Alioune Dione lim leen di tontu lu simple la képp ku d'accord bay défendre nag Bah Diakhaté mi jëlal kàddu yi mu wax Ousmane Sonko nga jël place Ousmane Sonko def fa sa papa su boobaa di nga xam ndax kàddu yi am na worma wala amul worma yemu ca moom ministre bi dem na sax bay xam xamle ne état bu Sénégal moom kenn du ko traversé dina am fullaak fayda la wax taxaw doole gi mu am ngir mën a régler yenn ci ay problème dina ko régler ndaxte réew moo ñu ñor ministre sax ñun dañoo ci nguur gi ko toog ci nguur gi moom Alioune Dione di xamle ci biir yéenekaay bi ne man mi li tax tey ma nekk ministre de l'économie premier ministre ci boppam moo ma consulté jël samay CV ba may dem tamit la ma wax lu leer la consultation signifié wul na dama lay jël d'office nag ci ministère bi ma bëgg nga nekk loolu moom damaa bëgg mu leer moom ministre bi Alioune Dione di xamle ci biir yéenekaay bi ne lii bu nekkul appel à candidature lan la ban façon tànneef Bassirou Diomaye Faye ak Ayib Daffé mi nga xam ne moo fi nekkoon mandataire Ousmane Sonko du ci cabinet chef de l'État du ci biir gouvernement bi du ministère bi ñu géré wala sax ab poste de direction lan moo ko wudd mbaadu Amadou Ba mii fës gi mu fësoon ci défendre na Bassirou Diomaye Faye nekk mandataire ba am tur loolu nag ci jamonoy élection présidentielle yi mbaadu lii moo ko lor moom ak Ayib Daffé mi nga xam ne turam si woon na lool jamono bi nga xamante la wax fi mu toll nii ñu ngi xaar nomination ci na mu gën a lan moo tax nag ba léegi si nommé wu ñu leen lii nag fi mu toll nii moo jar a laajte direct news moom def taxaw seetlu ci nii commencé naa am ci usurpation numéro carte d'identité nga xam ne am na ci ay sénégalais yoo xam ne seen carte d'identité yi ñu yor turu keneen léegi moo ci nekk victime yi nag lim gi mu ngi bëgg am na ci xam ne moom dafa dem bay waaje examen soo ko seetlu ne ndekete numéro carte d'identité bii ci turu keneen la nekk jirekaay bi def taxaw seetlu tamit ci éducation nationale ak kàddu yi nga xamante ni ministre de l'éducation Guirassy yëkkati woon na ko fii ne fi mu toll am na enseignant yu kam berede ndax li mu wax rekk na correction examen yi am na ci ay professeur yoo xamante ne nii tayal rek moo leen di jàpp ci correction yi mel na kuy def loterie laa la wax ci note yi li ni mel nag merloo na enseignant yi ñenn ci ñoom jàpp na sax ne erreur bu rëy la ministre bi def di sabote bay sabote nag doxalinu enseignant yi fekkee ne moom mi leen waroon na défendre moo leen di xarab ñoom jàpp nañ ne ministre bi li mu def erreur gënu koo rëy am ko ci yoon ndax yi vox populi moom def taxaw seetlu ci secteur privé bii rawatina yëngatu ci wàllu pétrole ak mine ñuy fàttali rek gouvernement bii ne leen li ñu leen yoreel ci alal kenn xamul lu mu toll te mënu sukkandikoo ci biir yéenikaay bi itam booy xool BTP rek gouvernement bu Sénégal gi mu ngi ko yoreel 300 milliards yoo xam ne ba léegi si fayagu ko jafe-jafe yi nekk ci secteur bi yépp nag ñoom exposé nañ ko ñoom secteur privé bi ngir nguuru Sénégal gi mën cee sukkandiku indi ay solution nag ci seen secteur bii donte ministre bi Birame Souleye Diop moom moo leen di gën a jege bëgg waxtaan ak ñoom ngir rek mën leen a rassurer ci secteur privé national bi solution yi nga xam ne nguurug Sénégal gi naal na ko ngir doxalin gu gën a mucc ayib yéenekaay bi tam des ci cadre APR yi nga xamante ni ni ki démb ci façon bii nga xamante ni moom la premier ministre di doxee ñoom cadre APR yi jàpp nañu ne Ousmane Sonko nag dafa bëgg di mbuboo nag cëru président de la République di ko doxee di ko waxee lii dara gën ko garaaw nag ci réew mi il faut que nañu sauver président de la République ñoom cadre APR yi di xam la ci biir yéenekaay bi ne Sonko yi moom lañ fal comme la République ab premier ministre la na bàyyi cëru président la République bi muy mbuboo ñoom cadre